coach waaw Aïda man dama ci sànni mooy xam nga réew mi dafa xaw a actuellement doy waar parce que euh, dañ dem ba réew mi euh, kenn nangootu fi dégg dëgg mhm. et bu ñu defal naan kenn ñemetu fi wax dëgg mhm. te te yàlla dëgg la bëgg mhm. euh, lu tax wax loolu mooy aujourd'hui boo gisee yàlla dafa sàkk dafa sàkk guddi sàkk bëccëg mooy muy contraire même booy def mouvement booy def ci àdduna Euh, booy def tey su ma yëgal sama loxo bi di ko bëf di ko bëf di ko ko def nii ce qu'on appelle mouvement loo gis il faut mu am contraire pour mu dox euh, yàlla sàkk guddi sàkk bëccëg ba ba gër wax ci aay ni yuli julee la fi naxaara wa ju fi leen donc ñun day ay ay gëm nañu yàlla di julli ak même ñu ñu ñu ñu julli aussi gëm nañu yàlla mais donc bu ñu gëmee yàlla il faut que xam ni contraire dafa am loo gis si atu euh, foog mu am contradiction pour àdduna mën a yàlla moo moo def na ay mbir mm-hmm. ba ci ba ci kaw loolu euh, aujourd'hui nit sañ na far mm-hmm. presse amul man gisuma presse bu farul koo gis presse boo gis am na am na benn penchant boo am mais même les même les dans les grandes démocraties boo demee en Europe boo demee aux États-Unis dañ naan kii ñii démocrate ñu àndal wala ñii ni ñu àndal mais li am solo mooy quand tu reçois des gens que tu sois professionnel mais nit mënoo ko tere mu far c'est pas possible maintenant euh, aujourd'hui euh, la question qu'on doit se ak ku mënti doon muy la muy la presse muy sportif yi muy ainsi de parce que ñàkk ñàkk li wolof naan ñàkk ñàkk euh, féete euh, day xañ wërsëg nit ñi nañu courageux boo faree nga ni fii nga far mais tey boo recevee Amara tey nga nii nga on doit on doit juger les gens moi je pense on doit juger aujourd'hui dans les gens dans ce pays de par leur professionnalisme lii lañ la dénk est que yaa ngi koy doxale principe yi mu laaj pour nga doxale ko aujourd'hui moo tax aujourd'hui c'est très dangereux ngay ñëw naan presse bi kii kii fait parce que nag la presse est le relais du peuple mm-hmm. il faut qu'on fasse attention bu ñu demee nag ba presse amatul la ça devient dangereux bu ñu demee ba presse moo dul wax moo dul wax moo dul wax comment ça s'appelle euh, euh, euh, li li li li eh, eh, li li peuple bi war a dégg ak eh, ak li mu ko ak ak di loolu sax defee dangereux donc moo tax nañ def très attention donc et comme tu dis aussi Sénégal dafa dafa nekk loolu mooy dafa nekk actuellement doy waar boo waxee li ñuy fii nga far boo waxee li ñuy fii nga far moi le conseil si je me permets à vous donner moo restez sur votre ligne après maintenant ku bëgg dégg nga dégg ku bëgg dégg nga coupé dem changer dem c'est c'est tellement aussi simple que ça donc maintenant mais euh, kii bi. Eh, comment ça s'appelle euh, contradiction bu fa am mhm. la preuve aujourd'hui regarde je exemple notre symbole de vérité le symbole de vérité pour nous tous pour ak boor bu mënti nekk notre symbole de vérité aujourd'hui est est est est est touché qui est l'université pourquoi ma notre symbole de vérité parce que André Malraux disait que euh, l'université a pour vocation la vérité mm. indiqué mais monsieur Malraux pourquoi vous disiez que l'université a pour vocation à la vérité mu ne parce que l'université c'est la compétence et la compétence c'est la vérité réew mi foog ñu delluwaat ci dëgg ak ak ku mu ci doon sax nga dëgg dafa neexul. Hmm. ak ku mu mënti doon foog ñu cest à bu ñu dellu ci dëgg rek moi je pense que on est en train de perdre les équilibres. d'accord. wala soo